moins plus que léegi moom c'est clair division am na seen diggante. lan ngeen fas yéene taxawee léegi. léegi li ñu war a taxawee mooy d'abord mandat bi dañ koy nangu. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. a dégg mm-hmm. si àdduna. comme que loolu lay wax. ñun ko wan ne récépissé kenn du ko abalale. non moom nee la la wane dañ ko duñ ko la wax. ñun la ñuy luwe. Mhm. ñun dinañ ko wax ñun ndax fii euh, code électoral am na. Mhm. ministère de l'intérieur fa ngay déposé. Mhm. fa ngay désigné mandataire sa ndaw bi ñu yónni moom ndaw la ñu yónni woon rek. c'est-à-dire ñun ndaw bi ñu yónni woon rek dañ ko yónni woon gis nañu doxal lu mu war a doxee. te dañ ko fiy jëlee te kenn léegi ñun réunion nañu marché bi président euh, Chérif Mbacke li ñu ne moom nee na am na nekk mandataire coalition bi. mais dinaa ko nekk ñu su persister si loolu. su persister beneen fi tey. mais est-ce que est-ce que tey gënul ngeen fexe jubóowaat demaat mu nekk seen intérêt parce que tamit bu ngeen fi nekkee di xeex temps dem. waaw mais am na moom amuñ jotul topp. xam nga jubóo waaw xam nga kañ la jubóo waaw. nit ñi man man man loolu ñuy mm. pour ñu jubóog ma def mm. mooy ñu jox ma temps d'antenne télé di saaga Abdoulaye Wade loolu ma def kon jubóog du ma am. léegi moom da mu sëdd bëre. waaw xëy na am na fu mu lekk avance. donc foo mu sëdd bëre man nag mënuñu lekk avance yaa ngi bëgg ma bëri loo man. Mm-hmm. man ma bëri ma bëri man vision. Mm-hmm. man pour la sommet. loolu kenn yëngatuñ si maam. waaw léegi procédure bu ngeen embarqué pour génne ko moom. Hmm. te comme mu ngeen joxoon ci mandaté woon léegi jeex hmm. euh, fu ngeen fu ngeen ci toll na ngeen waroon. procédure bi dañ enclenché lañ ko. waaw seen seen kii bi seen site bi. Euh, Kawlu TV. Kawlu TV dañu envoyé kii bi la lettre. Hmm. nous avons les revenus pour nañ DGE la direction générale des élections le ministère de l'Intérieur. Nous avons une am ci ampliation. nous avons publier ko nous avons moom mu xam ne léegi dootul mandataire parti de amatul droit on a amatul droit de Sénat le droit de ci département ensuite on est représenté sur 23 départements coalition parce que ñu des directeur de campagne Mboro Wade. 23 départements yi. fonds yi ñu joxoon Farba Senghor yëpp gis département yi kenn gisu seen c'est lan la ñu bëgg a def. waaw li jox nag dina jël ko waxee ko sa kër. léegi mais topp la topp la rek. ci pétrole bi bu ñëwee retiré mandat bi ci moom kan nañu war a promouvoir à la tête pour mu mën a dem. non mandat mandataire bi moom bu ko retiré man la sëriñ bi ne man naa ko nekk ndax moom mënu ko nekk. ndax moom il a d'autres occupations dafa yore maison de transit transitaire la dafa yore maison de transit am te ko fiy liggéey nee na man naa ko gérer pour le moment élection léegi mu jeex mu jeex mu voilà du ñu toog ak ku mel ni Abdoulaye Mamadou Guissé te duñ wax tuuti actualité dëkk bi temps yi tàng na trop dégg nga jafe-jafe yi fi am. affaire Demba Diop bi euh, xeex bi am ci biir politique bi surtout sax man ci laa gën a insister xëy na bële mën nañu wax ne ay la waaye xeex bi nekk ci biir politique bi ay mag yu jëmm dirigeant yi dirige ko ñuy cautionné loolu ay jaas di génn ay nit di faatu loolu lan moo ciy xalaatu El Hadj Diouf gi Abdoulaye Mamadou Guissé. waaw man li may xalaat mooy nous sommes parce que euh, mission ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique donc il est le ministre de tous de l'intérieur il est le ministre de l'insécurité publique. donc nous, nous courage reconnaître même élection les cartes électeurs abstention bi lu bëri ndax carte sénégalais yi sonn nañ dem di retirer seen ko du yëpp donc carte euh, électeur yi ñu ko génne jox ko ba dajaloo si nit a démissionné man la rek politique la ça n'a rien à ce qui se passe sur le terrain. waaw xam nga lan laa lan laa bëgg mu leer. Hmm. Abdoulaye Diouf Sarr day dem ci terrain xaw ma Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr gisee <laughs> baal ma ci juum bi dem ci terrain yow gis nga li ma lay wax. waaw dafa grand yof

campagne bi même bu doon soixante douze heures la. Hmm. mu arrêté ko. Hmm. woo. Hmm. chef de parti yëpp. chef de coalition yëpp. def ba ñu journée boo xam ne de concertation la. ñu waxtaan ci problème yi. parce que tamit campagne tamit dafa dafa complexe. xam nga campagne bu xasee ko jot. ah bon muy muy muy président de la république muy muy premier ministre. amatul ndogal ci population bi presque parce que les bàyyi est mm. démocratie on est en démocratie. Mm. mais aussi démocratie du exprimer du Wartan. Le national mm. je pense que le pays du Sénégal a problème. je pense qu'il est temps que les acteurs politiques nous parce que le euh, problème Sénégal actuellement euh, je me demande où va le Sénégal. vraiment doy na waar. Hmm. doy na waar te lii bu ministre démissionné. Hmm. su yàggee su doon mënuñu ko téye dañuy dem ba demandé dem monsieur président de la république monsieur Tine bii. Hmm. parce que affaire bi ndànk-ndànk lay demee te fu mu nekk état bu ñu egg nii mooy cappaandaw gi fi ñu nekk nii. mais mais véritablement est-ce que démission ministre bi man jàpp ma ne sa démission ministre bi euh, solution la nar a doon. mais solution la xam nga lii xam nga lii lii li may wax nii. problème de jikko la problème de nit la. mais dafa nànk dama yegg hmm. parce que yéen man. sec waaw waaw mais monsieur sec yow li wax ni hmm. c'est-à-dire que yow tu parles yow da nga bëgg ñu wax ci dans le au plus profond du mal. très bien mais le plus profond du mal nag. tey jii yow bi dang ci am xalaat. n'est-ce pas. dang ci war am benn taxawaay en tant que leader politique n'est-ce pas. waaw am na loo xamante day. man dama bëgg ñu génn cadre politique bi carrément. Hmm. parce que entre responsable leader politique. bon ñu nekk devant nous la parce que c'est bien beau nous ñaawlu pas mais chaque fois après c'est ça passe à côté. mais vous sur page Facebook. Mm-hmm. man wax dama ne. Mm-hmm. Euh, mais trois mois voilà même hommage pour dire d'autres dangers ont Sénégal. Mm-hmm. mais ça veut dire qu'il y a un laxisme de l'État. y a aussi un laxisme des pères de famille. xam nga tamit non seulement euh, état dafa désengagé wu ci côté éducation côté santé côté lépp mais aussi père de famille dañu désengagé wu. parce que tamit jikko yi li nga wax noonu. man je pense que xam nga damay benn waaye naan ko euh, euh, mu tuddati dañu war a am sax benn kii benn constitution boo xam ni. Mhm. dañu réussir jikko yi rek day ree quoi man ko jarul pourtant waroon nañu def constitution moom mm-hmm. tey nga dem Burkina Faso mm-hmm. mais amuñu dara mais c'est le mm-hmm. ku fa dem boo ñëwee rek xeeb sa bopp Sénégalais bu dem Burkina Faso ñëw xam ne yow yaawoo xam ne yow amoo amoo li wax fii li ngay coow amoo parce que Burkina Faso doo dox sax di gis si mbedd mi këy te doo gis nit romb nit mais dégg ay saaga doo dégg nit doo dégg lii te les gens se respectent même télé même acteurs politiques yi se respectent moo tax bu ñu amee parce que dëkk bu yaroo am yar am teggin te seen cër Maxtaar wax na ko yar ak teggin fii ne moom man éméfni moom daman yenn saa yi bokk nañ ko parce que seen langage yi si débat télé yi tamit dafa doy waar c'est des c'est des paroles yoo xam ne c'est incitative mais loolu dëgg li nga wax dama a hmm. dañuy toog parce que quand su ma déggee benn leader politique bu dee waxtaan yi ne violence bi commencé gul xam nga xam nga li nga wax. non mais sax waxuma loolu man man je me dis nga dem ci plateau télé yi. Mhm. gis ñu invité leader bi mu saaga kenn gi ñu indiwaat keneen ki mu toog di saaga di toog ñu ne loolu télévision la man je me dis loolu télévision. télévision mooy bu war a éduquer la d' abord nga wax loolu dëgg la et aussi que sur le plan politique mais mën nañu am code code de régir la vie politique. Mhm. de assainir la vie, la vie politique au Sénégal. Parce que la vie politique doit être assainie. xam nga keroog man de kaawu Khalifa Sall. xam nga man nu ñu la comprendre ñu tëj nit nga ne nañ ko bàyyi mu dem campagne la ñuy wax trêve. justice trêve judiciaire. xam nga trêve judiciaire amul ci justice. waa yi biiram day metti. dañ a parce que boo tey boo nee Macky Sall def lu yoon li mu dégg Khalifa Sall def lu yoon mais yow li ñu koy laaj loolu du yoon. du yoon dëgg la. est-ce que dëgg la fi may waxee. Mm, mm. mais ñun suñu niveau politique moo baax. Mm. quand il dit que trêve judiciaire war ñu ko def Khalifa Sall rek gars yi ne waaye kon da nga ko bëggoo Khalifa Sall génn. mais du loolu buy génn nga génn si anam yu leer parce que deful dara bu ñu prouvé ñu génne ko mais du nekk kaso ñu koy ñaan loolu ñu jublu ak mooy indi affaire di di yi ñuy wax ay protocole ah protocole de Rebeuss protocole de fii ak mais. pièce de justice mais ñun citoyen lambda la ñuy teg bu ñu tegee ñun dañuy jaar procédure normale sooy dee rek foofu ngay nekk ba si jour ngay liggéey nga génn mais keneen bu dee doon président wala doon ministre wala lenn euh, gars yi indi ay ay télé judiciaire ak ay ay protocole wax dëgg yàlla mais loolu duma ko nangu man duma ko nangu seet hmm. te nag damay dama lay remercier si yow vision bi nga am di prospective si suuf c'est-à-dire que jikko yi hmm. ak homme politique seen responsabilité si violence yi am ak problème yi am Sénégal mais ñoom la les la même tey man je dis ça au président Macky Sall dialogue national bi passé mais moom moo war a jël décision am gis nga nit bu bëggee app apaiser ah le climat social politique économique yow yaay toog mi waxtaan ak ñoom yow yaay bàyyi affaire parti partisan affaire clan moo tax man mënuma ànd ak comme que waa da nekk du pouvoir dañuy saaga waa bu ma ñu waajee ñu dem saaga la mais loolu du am noonu ba kañ ni da ngay ni da ngay da ngay tooy fenn mhm. da ngay tooy fenn ni da ngay am gëm-gëm c'est-à-dire que sa ngëm-gëm moo la war a yóbbu ba tey fi ñuy gis feneen ñu ne ah kii de ñuy bett ñu ci moom mais tey farba sa kan la ban sénégalais lay wax dara mu gëm ko man gisuma ko par sambu ban sénégalais lay wax dara mu gëm ko ñoom bu ñu ne di saaga Ablaye Wade du ñi nga xam ne duñ juddoo gis leen ñoom ñuy ànd ak Ablaye Wade moom ñuy ministre ñoom ñaa ñëpp ñuy ministre mhm. di téesante ci internet bi bu juróomi million mais ñoom fu ñu jëm ku un ancien bu juróomi million tiital mais kon xam nga ne kii fu ñu jëm amuñu valeur amuñu vertu amuñu exemple du modèle voilà. gis nga euh, ñu ngi lay jaajëfal. Euh, di la dellu di la njukkal bu baax a baax ci disponible yi nga xam ne am nga ko. Mm-hmm. na nga waxtaan ak ñun ci li xew ci réew mi. Euh, ñu ngi la siy bu baax sa kàddu gu mujj lan lay doon. non di remercier ñëpp. di remercier vraiment waa Pikine. parce que bi campagne bi commencé ba léegi amuñu moyen yu ñu campagne mais man gis naa waa Pikine ñu ngi may soññ. ñu ne ma boo yorul xaalis sax ñëwal ñu dugg def porte à porte ñëwal ñu ñu ay t-shirt ñëwal ñu def lii donc loolu rek man doy na ma ndam donc man candidat ci liste nationale laa nekk mais département de Pikine aussi ma signalé ko liste bi foo nag pharmacie Mor moo ko reyee moo ko dindi xam nga loolu garaaw na ndax lan boo ko dindi dañoo dem le département de de commander c'est Mais c'est pas vrai. Donc tout ça, c'est dans le cadre de son objectif de, de, de, nuire les deux partis qui sont co-signataires euh, de la coalition Borowat. Et là, je prendrai toutes mes responsabilités devant l'histoire. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci. <laughs>